Heavyweights.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 yóbbu ko ci bërëb tëj ko fa ñaari fan tëkkee koo violé xale bu jigéen bi mooy waxal boppam de xale bi nee na ci boutique bu la demoon le 13 mars bi weesu ngir doon fa jënd mburu naka noonu nag ci la ko em caam kare fekk booba em caam mu ngi yor moto ne ko yéegal ci moto bi ma dal di lay yóbbaale xale bu jigéen bi sans hésiter dal di yéeg sikki sàkkawul dara ndax moo waa ji bokk fi dëkk xale bi nee bi mu yéegee ci moto bi yaakaar ni sa waay da koy yóbbu këram waa ji riir utal ak moom fas mbaaw ba ñu yeggee fas mbaaw waa ji dal di koy tëj ci am neeg ñaari fan dëkkee ko violé <laughs> ma ne yow laal nga loolu procureur de waa bi mu defee njom dem ba noppi da doon jéem a ger xale bi ndax daf kaa jox xaalis nekkoon na dem ca Louga tellu ca ay kër waajuram ndax xale bi komi ko gi mu nekkoon magam bu jigéen la fa nekkaloon ak li ko waa doon jéem a ger yooyu yëpp na xale bu jigéen bi bam ca jógee dafa dellu ca yëmbal komi ko dal di lépp mag ju jigéen ji waaw góore waay bi mu nee toq ci nopp mag ju jigéen ji na ci mag ju jigéen ji dal di déposer plainte ca commissariat bu yëmbal komi ko pour viol ma waxaat ko alalu procureur nga laal de xale bi nag fa preuve yëpp dal di jëbbal mag ju jigéen ji yére ya solo nag yëpp mu jëbbal mag ju jigéen ji ngir leeral yëf yi ci la élément commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo yi dal di saisir ab structure sanitaire gannaaw ba gynécologue xoolee xale bi dal di def constat yi bi ñu amee assez d'élément nag ci la ñu demee dal di loxo waa ji at yi toll ci quarante ans waa nag bi ñu ko tegee loxo bi ñu ko lankete moom dafa weddi yëf yi ci naaj bi ci ne pare naa fay analyse li ci war yëpp ngir setal deram hmm, ma ne ko fii mooy Sénégal de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Cees romb na doy war moom dal li ñu naan gaalu dof du ter ab waaju tàggo xelam daal moo fa singli ab district sanitaire bu nekk ca Kër Moussa ña fay faji dof ba mayu leen jàmm waa ji dal district sanitaire bee jëm waayam saa bu wuti fa dëkkeet ci faare te saaga nday ña fay fajoo ak ña fay faj waay yenn day ñëw yëg ci kaw toiture yi di di faare ay saaga nday personnel de santé bi waay ma ne jàpp leen kii laa wax ba bés mu xëy dugg ci bureau infirmier bi dal di gàddu aw yatam tiim ko ne ko ne ñaanal par force ma ko ah, a ñaanal ko aw yat moom nga tiimale ko nit kaaya bañ ko sonne la ñu interpellé brigade territoriale bu Pout ñu ñëw dal di yóbbu waa ji ma waloon ngeen koo teel def nag ndax borom article cinquante ku mu rey nga perte moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca kaw la romb na doy waar ab xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom benn moo fa jam faru turandoo yaayam bu jigéen amu jaare fa ñàkk bakkanam eskay xale bu jigéen bi mu ngi woo ci moom daal li mu mënul woon te mooy mbëggeel gi doxoon ci diggante Asar ak turandoo yaayam bu jigéen boobu taxoon mu dëkkoon ci di leen surveiller ak dëkkee di leen topp ñoom ñaata saabu ñu mësaan a nekk ma ne xale bu jigéen bi dana ñëw ba ci seen biir déranger leen indi giite ngaaf mujj NG ak faru turandoo yaayam ji bañante dëgg lañu def ajuma ji weesu na gannaaw ba ñu ndogee ba noppi NG daa toog gisul turandoo yaayam naka noonu ci la génnee di ko ba ñëw fekk far bi asar tiim ko di ko dóor mu dem dugg ci ab bitik jënd fa paaka buy jar ñeen fukki dërëm dal di koy jam asar ba mu jaare fa ñàkk bakkanam <laughs> ma ne lii de mooy senegal ay xale yu ndaw farantu farantu farantu fara <laughs> réew mi ndaw yi rëcc nañu mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz